yow sama mbokk na nga wattandiku jëw na wattandiku njistal na nga wattandiku naw sa jëf te nga bàyyi kañaan ak rëy na nga bàyyi ñàkk yërmande ci mbindeef doomu aadama te nga wattandiku sopp yëkkati ko ci say nawle féete leen kaw nee na jikko yu yi képp koo xam ne dajale nga ko wala nga am ci benn rek da nga perte ëllëg wax ci minhajul abidina ne juróom-ñaari asamaan yépp